awsubillahi mina seytaani rajim bisimillahi rahmaani rahim asalaamualeykum asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokki julli di mbokki taalibe yi ñoo ngi leen di nuyu di leen ziar baax di leen ndokkeel di ñaanal xalif général kulu murit seex Mouhamadul Muntaxa Mbàkke mu yàgg fi lool Mbàkke ca ànd ak wér ñaanal mbooleem njaboot ak seexul xadim gépp ni ñu ko aada waxee tàmbalee ko Daarul Xuddus kër seex Mouhamadul Moustapha ba ci kër seex Mouhamadul Murtada kër soxna Faat ja ba ci kër soxna May mbooleem seex yi nga xam ni dañoo ànd ak Serigne Touba Khadim Rasoul ba làq ngërëmam ñoo ngi leen di nuyu di leen ziar di leen ndokkeel baax a baax di ziar nag képp koo xamante ni taalibe nga moo xam nga ni ci biir réew ak bitim réew mbokk yi nag tey la bis bi nga xam ne moom la ñuy fàttaliku dëkk gi seexul xadim xadim rasul dëkkaale na ak borom subhanahu wa taala muy bës bi nga xamante ni moom la doon ñaan naa allahuma ijal xeyra ayaami yow ma alxaaka yow suñu borom maa ngi lay ñaan bés bi gën ci samay bés muy bés bi nga xamante ni moom laay taseeg yow ca taawam bu tedd ba di Cheikh Mouhamadou Moustapha Mbacke ci teewaayu Serigne Massamba Mbacke Bàcc Anta Thiebo ak magi taalibe ya ginnaaw ba mu leen digalee woon bés bii lépp ñu def ko ci moo tax nag mu woote woon ko wooteem ba am solo ba bule ginnaaw bi nga xamante ni ku tedd ki di Cheikhul Khadim Khadim Rasoul dëkkaale nag boromam booba ak léegi mi ngi toll ci téeméeri at téeméeri at yoo xamante ni bii téeméeri at yi mbégte la téeméeri ati bànneex la waaye téeméeri ati tawféex la téeméeri ati naataange ngir lan dëkk bu sell bi di Touba na ko seexul xadim xaadim rasul bëggee woon ak lépp li nga xamante ni dëlanu ko ci Matlaboul Fawzeyni ca njaboot gi tàmbalee ko ci Cheikh Moustapha jaar ci Cheikh Madul Fadal mbake ba ci ki nga xam moo fi nekk tey di euh, Serigne Touba Cheikh Madul Mountakha Mbacke ak ki ñu jooy ca noppeeguñu mu di Serigne Touba Cheikh Sidil Mokhtar Mbacke kenn ku ñu nekk ànd ak njabootu Serigne Touba gi jëf ci jëf ju rëy jooj nga xamante soo ñëwee Touba yaakaar am na ay siècle siècle ca yaakaar naa ni nag kon boobaak léegi mën nañoo jàpp ni Serigne Touba Khadim Rasoul suñu borom fay na ko loolu nag moo tax centenaire bi tey ñu yokk ko yaatal ko ñoo ngi fii ci Béyti bayti nag suñ ko waxee fii la xalifa bi di Serigne Ahmadul Muxtaar Mbacke di xalifa Cheikh Mouhamadul Moustapha Serigne Ahmadul Muxtaar Mbacke mi ñu xooli jëmmi Cheikh Mouhamadul Moustapha Serigne Ahmadul Muxtaar Mbacke borom noppi ak liggéey ak jaamu yàlla gu mat sëkk moom lañu fekk si fii tey waaye nag lii suñ ginnaaw su ngeen gisee image seriñ Serigne Abdoul Baaxi ja ngeen xam ni nag ñoo ngi fi nga xamante ni mooy fi barab barab bi nga xam ni fi lañ euh, bagage Seexul Xadim Xadim Rasul yi ñu yóbboon ca tukki ba fi lañ ko waggar fi ko saytu defar ko defar bu baax ànd ko mbokki taalibe yi ñëw di ko ziar si kon nag daañu ànd ak yéen ci ay reportage ca kër sëriñ ba ànd ak yéen ci ay témoignage ci mboolem njaboot ak Cheikh gi waaye tam ba ci seex si ak mbokki taalibe yëpp kon nag mbokk yi tey daal bés bii mooy bés bi sëñ Tuubaa Xaadimu Rasuul doon ñaan waaye tam bés bii mooy bés bi Cheikh Moustapha waxoon ni képp koo xamante am nga meen mbubb mën nga jaay ngir tontoo saxaar gi mooy bés bi soo ko amul nga dox jëm si Tuubaa ba ñu xam ni def nga ci ay jéego bésu tey bii la ñuy fàttaliku dikk ak Seexul Xaadim Xaadimu Rasuul fanaan si dëkk bu sell bi nga xamante ni moo di Tuubaa ca kanam incha allah kilifa ak jataay bi di kilifa dëkk bi di siyaar bu baax di leen nuyu ci seen tur di nuyu ci turu commission culturelle bi ci ndigalal sëñ Cheikh Fall Taïf mi nga xam ne moo ko jiite ak ku mel ni sëñ Cheikh Kounta ak sëñ Bakilo ñoom waaye dem di wàcc ba ci sous commission bi nga xamante ne bi recherche la te sëñ Ablaye Diagne ne ci kanam ñu bokk kooku yeneen section yoo xam ne ñu lu mel ni Baye Ablaye Diagne bu Mbàkke moom sax moo jiite commission sous commission Drousse bi man ma topp ci ginnaawam xam ne ba ñu jàppee bis beeg léegi ñu ngi amal ay plateau ci réseaux sociaux yi ak yeneen i télé yu bari yoo xam ne ñu ci am ay plateau di leeral euh, bés bi ak tolluwaayu bés bi nga xam ne ren ji dañ ne mooy téeméeri atam ci Touba boo ko seetee xëy na bu dee ni ci xaama euh, higiriya day mooy 1346 waaye nag bu dee xëy na milaadiya ca yegg day manqué tuuti waaye nañ fi ñu sukkandikoo mooy sëñ bi lu mu daan bind ci xaama nangam lay bind kon foofu lañ mën a jàppee mooy suñu téeméeri at kon nga bàyyi xel kon ba mu tëddee feeg lay at ci ren ndax ñun daañu am téeméeri at te Touba am na dëkk yi ko mag yu bari te xoolal nag dëkk yi mu tool yi nga yi yi ko fi mag bari Dakar ko mag Kaolack ak ak Saint-Louis te tey day mën naa deuxième capitale du monde ci deuxième capitale du Sénégal kon nga xam ne kon Touba am na beneen wàccuwaay diirub téeméeri at kooku tëdd ko fi raw nekk deuxième capitale ci ci réew mu dëkk loolu lu kawe njort la waaye liñ ci mën a jàngat rek mooy ñun. fi nu fee sunu maam yi fekkoon dëkk bi ak ñun fi nu nekk tollu ci dëkk bi loolu la loolu jar jàngataat la ndax bu fekkee ne calculer nga ci xëy na le niveau géographiquement économique économiquement Touba romb na ci dëkk bi boo fi mëntoon boo ko placé rek romb na ko ci tolluwaay waaye ñun ñu ñëw rek ci li nga xam ne moom nañu sant xëy na yooyu mënu ma caa dugg ndax xëy na xam-xam bi du ko mate waaye ba ñu jàppee bés beeg léegi sasoon nañ section bu nekk cent 313 kaamil jës mooy muxaddimaat miim yow matlabu fay seen yi nga xam sëñ Muntaxa moom da koo téye ci mu gëm ko lenn lu nag ñu sàcc section bu nekk cent 313 313 yooyu nag section bu nekk moom moo ko séddalee ca nanga xam ne ca lay mbooloom toll ak nam ko mën a jàng ci ab euh, ay daayiraam xam ne benn nañu yaa xam noo koy séddalee waaye trois cent 313 yi moom section bu nekk da nga ko andi lim boobu tey jii bu ci soobee yàlla ba mu mat fii nag ci suñ tolluwaay ci subaak léegi ñoo ngi tàmbali liggéey bi daanaka ay huit heures huit demi yooyu fi mu ne soreeguñu waaye ñu ngi ci tiñu fukki kaamil ak xasaay du toll ci juróom fukk mbaa lu ko fawqa xam ne boobu ba léegi daal ci loolu lañ nekk ànd kon nag section yu bëree bëri ndax 23 section wala 22 section yi nekk ci liggéey bi yëpp di section bi eh, kenn ku ne dañ la ne na nga indi aw membre yoo xam dañ ñëw ci liggéey bi fii xam ne mbooleem fédération bi section bu nekk am na ñu la fi teewal xëy na mënuñu nekk di lim section bu ne ña fa teew section bu nekk am na sa membre yoo xam ne ñu ngi fii sous commission durus bi ñen ñu ngi fay sous sous commission recherche noonu lañ ko séddale woo ci liggéey bi foofu daal lañ fi tolloogoon xam naa Baye Moussa da nga xaw a bett te it <laughs> xam nga daal ñoo ngi tub di jégalu di baax mbooloo mi daal bu ñu jógee fii ci ci ci bi ñoo ngi dem ci baasu mag bi ci penku bi foofu lañ amalaat suñu njàng alxuraan booba ñuy julli suba ñu ñaanal mbooloo mi yeeku delloo ci yeneen jamono ñu sàkku daal képp ku mën di doon foo mën di nekk rek xamal ni ñu ngi fii biir bayti di amal suñu njàngum alxuraan loolu daal lañ santaane kenn ku nekk rek mu ñëw ci daal bis bi ngi tubaat jégalu. macha jërëjëf. ren bi màggal gi dafa hmm. ñëw dëkkaase bi ak boromam fii ci hmm. yëg-yëg ngeen ciy def ci bi. waaw biñ ci am yëg-yëgu euh, koo xam ne li mu yaakaar àdduna ak àlaaxira dafa lépp dafa tënku ci Serigne Touba. mu fàggul ñu defal ñu lépp tey féete ñu fépp ëllëg yàlla dogal at mi ab liggéeyam matee ba mu ñibbisi Touba féete ak boromam boo bokk ren war a doon téeméeri at boo déggee ñu koy wax natt moo tax ñuy wax dañuy natt su dee ndam dangay xool li liggéey bi Sëñ ni muy yëkkati ko loolu moo tax ñuy natt pour wane ne li Sëñ Touba waxoon ne darajati taaloo wala sa tan xafit wa man naxaa minal war a xaf di xu fit daraje sëñ Tuubaa saa su dee day gën di yëkkatiku rek te képp ku jublu woon sax ne damay yë euh, suufeel mbirum sëñ Tuubaa yow yaay jëm suuf ku ne xam na ne tubaab yi jéemoon fexeel sëñ Tuubaa fi ñu toll ni ñoom ñoo am problème waaye fi ñu toll ni ñun croissance lay wax dañuy yokku te day gën di neex di gën di baax di gën di jëm kanam te loolu kenn defu ko dul sëñ Tuubaa moo ko liggéey euh, bis la nag boo xamante ne sëñ moom waxaalee su ko ndax amul morom waaye buñ tuddoon sëñ Mourou Moustapha rek nga xam ne moo ko jëkk a wuutu taxaw ci taxawaay boo xamante ne doy na référence doy na référence ndax am réew dañoo soxla référence su ma jëloon ndaw ñi sëñ Mourou Moustapha mooy seen référence su ma jëloon wayjur yi sëñ Mourou Moustapha mooy seen référence su ma jëloon kilifa yi sëñ Modou Moustapha mooy seen référence su ma jëloon chef de projet yi it sëñ Modou Moustapha mooy seen référence ñeent yi boo ko tënkoon rek xam ko pourquoi amee ne la xale yi sëñ Modou Moussa mooy seen référence sëñ Touba bi muy dem ci géej gi sëñ Modou Moussa juróom-ñetti wat at la war a toll mais ku ne xam ne ne moom ak rakam ju tedd ji sëñ Mouhamadul Fadal ah euh, sëñ Touba jaalal na leen foo xamante ne ba mu leen booleeg sëñ Mame Thierno Birahim ñu jox ko seen bopp na nañu moom àndin woo xam ne ndaw ñi bu ñu xamoon loolu rek lépp lu jëm ndax xale. lii valeur am mooy am kilifa boo amee kilifa rek da ngay dem si sëñ maam Thierno Birahim ànd ak ñoom àndin woo xam ne def ci ñoom la mu war a def ci ñoom alxuraan jiitu ci ah, la ca topp topp ci euh, mooy xam-xam yëpp ñu am ko kon loolu mooy ndaw ñi référence boobu doy na ci nga ñëw ma ne la tamit référence la ci euh, ci ndaw ñi waaye doy na référence ji ci képp koo xam ne way jur nga gis nga bi yàlla dogalee mu am ñeent fukki at ku tedd ki ñibbi si Touba moom dafa uuf njabootu sëñ Touba yi uuf dongo yi uuf yoon wi waaye na mu ko defee euh, yërmande ji yitte ji xel mi euh, ak cër yi mu am ci sunu borom lépp dafa mel ni da koo jëndee euh, jikko yi sell musta wane wilaaya wala baatin xam lan la doon wane ay teggin ak yar ba nga xam ne ku mu seqal sa xol day nooy yoonu wépp dafa ñëpp te yoonu murit lu naqare woon a boole la ndax sëñ Tuubaa dafay bàyyi ñoo xam ne kenn bëggul di sa moroom la ku ne def na la defal na la loo xam ne cër boo xam ne sa digganteek sa borom ak sa digganteeg sa bopp yow yëg nga ne yow dafa mel ni boo ñàkkoon ñëpp it mën ngaa dem waaye kenn ku ci ne ñëwaat nga sukk ci kanamu sëñ Mourou Moussa jox ko sa bopp kon noonu leader boo gisee ñu koy wax sëñ Mourou Moussa mais boo boo weesu woon loolu tamit daal di ne di ne way jur tudd naa way jur léegi dina na soxna May dafa daan wax ne yéex na ñoo xam ne ñoom bi ñu féetee ndaw yéex na ñoo xam ne sëñ Modou Moustapha seen mag la dañoo jàppoon seen taalibe bàyyi la ndax ni mu daan tarbiyé woo doomi sëñ Tuubaa yi kon kooku way jur boom moom féete na leen foo xam ne mooy waltu bashir bi el yataama dawaa man ansihim bi abaahum ku la yéene loolu mooy mais ma jëlaat beneen facette mooy sëñ Mourou Moussa dafa doonoon jàmbaar képp ku am projet jàmbaar sëñ Mourou Moussa moom nga war a roy mais raay bi bu mu koy jëlee en 1929 ah di ko jëlee Njaareem di ko indi Touba mais boobu c'était en contexte colonial boobu tubaab bi dañ ko tegal comme ay obstacle ne ko jumaa ji doo ko fi yëkkatee te mënuñu koo gantal ndax ni ni mu doon doxee mënuñu koo gàntal dara ñuy jëf ñu def ay ndëgg sërëx yoo xam ne ngir li muy def bañ a sotti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 amul kenn ku lay xiirooti luum nan ci Mustafa wala yaara yum may yaay borom xaas ni Mustafa Muhammadu Abdallahi ax nii Mustafa ña daa xiiru mat seen gën ya foq nañ sa bawkat yi seen gémmiñ yi nañ ko Mustafa ñadaa a ñadaa xaatima ñadaa luxus yalax nañu seen xam-xam ya far toppi mustawa si gil te weytoo madru yi tuub nan ci bu wér te bul faale ka wuy see ka far jekki mustawa su fekkoon da ngay laaj carte say candidat wiiw la yawat ña daawoote ña daawaate mustawa ñi ngay woo nee nañu waawaaw nda Seex Bamba yaay donoom ku koy sikki sakaareere Seex Amdi Mustawa ci waaw mbaa ci waawaaw mbaa ci